baadi asmaihi sallallahu alayhi wa sallam wa sifaatihi bunt bi bunt la buy jàngale turu yonent bi waaye dana ñëw tamit jàngale melow yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga de tur ya bokkoon na ci ahmadun ahmad xaamidun xaamid muhammad muhammad maahid ak maahid aaqib ak aaqib xaasiru ak xaasiru dafa waa gi nekk la ñu ko asmaawu ay tur lu ñu xel yonent bi yonent bi turam ya ahmad ci la bokk moom nañ ko bindoon ci tawreet moo taxoon la mooy kuy sant fu mu mu muhammad moom la ko maamam abdul mutalib tuddee woon ñu laaj ko mun ne tuddee naa ko ko ngir bëgg asamaan ak suuf yëpp sant ko loolu yàlla def na ko tur bokkoon na ca maahin mooy kuy effacé ak ak kéeféer di effacé réer xaaqib bokk na ca tur ya mooy tekki aji mujj moo waral fii ba bay àdduna bi tukki kenn ko fi taxawati ne yonantu bee ma yónni yàllaa ma yoon yónni dootul xamati ndax luñ doon soxla yëpp yonantu bi andil nañu ko xaasir mooy firi aji dagale mooy pang yàlla dagale na ku weex ku ñuul ku njëkk ak ci mujjam ñëpp ci roon xëttab yonantu bi Moustapha kuñ tudd mooy tudd kuñ tànn ci tur yàlla Moustapha kuñ tànn lay firi Aminun mooy kuñ wóolu waa Makka ku ko tuddee. Mhm. mu tëppoo nag melawam. wa taaha taaha ci tur yàlla. Mhm. ñu ne dañoo gendee ku weer yi ba xam ne fukki fan ak ñeent. Mhm. taaha juróom-ñeent la xaawun safira juróom. 14 la lay jox. wa basirun basir ci tur yàlla mooy firi aji bëgle. haadil anaami mooy kuy gindi mbindeef yi. ci tur yàlla. shifaawu ba tey mooy jëmmi saafara. boo ko seetee yonent bi dëppoo na yàlla ci juróom-ñaar fukki tur xam ne bu yàlla tuddee nii rek yonent bi loolu lay tudd wa mooy làmp ba mu niiru bu leer ba wa moom nasirul xalqi mooy aji kupp mbindeef yi mooy aji waar mbindeef yi ñi nga xam ne dañ koo weddi ci safara tu say fi mooy borom jaasi ja man mooy ki nga xam ne alayhi nekk na ci moom liwaaw drapeau ba na yàlla jox drapeau bi de kon kooku mooy sayyiduna Muhammad huwa moom Abdullahi mooy Abdullahi moom la ko alquran tuddee wa innahu lama qaama Abdullahi xaatimatu rusuli mooy mottali yonantu yi mm-hmm. aminuñ mooy kuñ xóolu ko mm-hmm. wa qawmuhu nitam ña mm-hmm. umanaaw mooy ñuñ xóolu ña kon lii bokk na ci turu sayduna muhammad yi yenn waaye lim xam ci tur suñ ko bëggoon a def di ko fi nit ñëpp fi lay fanaan waaye moom daana wax ne daal yàlla jagleel na ma ci boo demee ci muslim dafa ne inna lii xamsatu asma ana muhammad wa ana ahmad wa ana almaahi alati yamxullahu bi bihi kufru wa ana alxaasir alladi yuxsaru naas ala qadami wa ana alaqib alladi laysa baadahu nabiyun noonu la ko indee boo demee ko téere bu ñu tuddee bahjatu wax na ne li gën a ci làmmiñi xeet wi ci ay turam mooy Moustapha ak Mujtaba ak Aminu te tur yooyu ñoo gën a ci ay turam sallallahu alayhi wa sallam dégg nga de léegi nag mi ngi bëgg a bunt bi mujj téere bi di bunt bu daw yaram nga xam ne mooy bunta feebar sayduna muhammad di bunt boo xam ne ci la téere bi jeexee ci la dundam yonantu yàlla muhammad di jeexee tamit ndax moo dooree woon ak yow ba dara xamagut ci antalil kaw ni bahjatun wa bahaawu jugee ko ca jaar ca maam ya ba ca àddinaan jugee ko ca jël ca maanaam abdul muttalib ak gas sam-sam ko fa ci abdul muttalib ak gas sam-sam mu takkee yaayu yaayu ba mu takk muy Abdullahi mm-hmm. ci Abdullahi ñëwee mm-hmm. moom moom moom moom moom moom ba Abdullahi am sayyidatuna Amina mook Aminatu mm-hmm. ba ëmb ñaata weer la matuga soxna yee ñëwoon ngir ndokkeel si ko ñaata fan la ko nàmpal ñu ne yooyu door a ñëw ne ko nàmpal ñaata soxna lañ wax na la ko lu doon màggee lu doon raamee ñaata at la am fer ba mu feree tabaarakallaahu nan ban ñaata weer ñaata at lañ ci teg yaayam génn àdduna ak nam doon sàmmee ca nañ nam doon nekkee woon ca tabaarakallaa fa mu doon sàmmee xalima na ko malaaka yi fekkee fa fa xadd dënam ba ak maanaam ba mu ñëwee màgg xel ful fuddul ñaar fukki xatam ya ak dañ koy fas mu fekkee ko ñaar fukki xatam ak juróom daanaka yu teg tuuti yu manqué tuuti mu dem saam jëlee mbasindis demoon été ji Xadijatu jox ko ko mu ñëw ñib lam ci bénéfice woo takk sa soxna ci xadijatu jaar ba labat ko xadijatu ñaata jëkkër la amoon avant mu koy denc moom moom moom moom ak xadija moom moom a am fukki at ñeent fukki at ñu ko bañ koy yónnee fa la nekk lu njëkk wàcc ci moom ci alquran ak la ci mujj wàcc moom moom ak lam daj ci nu bootagoog na ko jibril fekk fa fa di ko njattak bam am juróom fukki at yu manki ñett ñu jël jaale ko embargo ko ak famille bi ba ni Quraysh ba wala bàyyi taxam bi Abu Talib jëlee feebar bu ko génnee àdduna ca la nekk ca la nekk ca la nekk ba njëkk loola ñu demoon biñ ko yónnee bés juróomi at lañ ko teg gaa yi dem gàddaay yi dem Éthiopie xajatuñ fa ba Aboubacar bu góon a dem ñu ne ko toogal fomm ko ci barko ximaat noona ba mu am juróom fukki at yu manqué ñaari weer Abu Talib génn àdduna mu dem taayif ñu boole ko xaj ya ak xale yu ñu yarul ñu koy sànni xeer ba tànn nàccal tànk ba mu ñib si yàggul dara suñu borom rañaane ko mu bàyyeekoo ca ñëw ca rañaan nga indi julli ñu nekk ca nekk ca moom màkkaag xéeféer yi ak jaamaarloo ga lu mat presque fukki at ak yoo xam ne mi ngi sax di woote waaye daal nam ko bëggee woon dëgg-dëgg amee wut ko moom moom bañ xëy génnee ko dëkk bi moom moom ba Madina ñu commencé nag farataal ci moom jàkk kii xare ya xare ya ñaata lañ yam xetle yam teew yim xeex nim la ko détaillé ak nam la ko jëlalee tamit tabaarakallaahu ñaata nit la mu sarayak ci xare ya jëlal na la ko tamit bàyyi taxam ya ñam bokk ak soxna yam takkoon ñaata soxna la am ñaataa ko ténj bi génnee àdduna procès bi mu njëkk taxawal foofa ca Madina muy jàkkaam jàkk nañ fa nekkee woon ak nañ ko taxawalee jël na loola jël ko jël ko jël ko dugg ci nam daan kafeek nit ñi wax ay ay environnement la ko wëroon lu mu ci amoon ci aw xeeti bàyyi may ñaata xar ñaata bëy ñaata euh, ganaar wax la ba wax la gëléemam ya wax la nag yam yam daan ratt seen soow ya ndax amoon na nag wax na la ko yooyu yëpp ba wax ay jaamam yi ko daan liggéeyal wax la bagage yi néegam ya kër ya lim amoon ci ay yëreeg pantalon ak mbubb ak semis ak kaalaat dokk yaat maanaam drapeau yaat lépp bàyyi ko ca dara moom moom moom moom ba wax la meloom wax nga xam ne tey soo amee woon photo rek mën nga ko mën ngaa defee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam nam mel bët ya xef ya tabaarakallaahu loxo ya biir ba tànk ya doom bu baat yaag lépp jàngal na la ko ba indi la tur ya ci tënk nag mu war laa andil na génn àdduna ak yonantu bi ndax lii koo waxoo jeexal nga ci mit <laughs> bàyyiwu dara moo tax mu ne amu amu ayin xatam ayu muy fukk ak benn wa ayu xat bin bu mu ci mbambu tabaddaa la feeñee kaana xamee na minhu ci at mooma irtiqaawu ak yéeg ilal karimi jëm ca yàlla bi yonent bi amee fukki at ak benn ci madinatul munawara ci ko feebar bi roofu war a wuy ji boromam kon jëf nga na jinaat ama ayin ne wa xat bin te ñaari duñ benn bii onze la bii nekk bu mu ci dégg nga faqad ixtaara tànn na xiina xuyira waxtu wa tànnle ko maa loo xam ne fii nekk na ci liqaawun ak daje wa an yedduma ba dappetu ba xaawu des ka jibril la ñëw na ko sa borom nee na nga tànn des fi dund lu la neex soo fi bàyyee ko dem aljana bu la neexee dee tay tay tay dem aljana tay tay yonent bi ne tànn naa lii des ci lii jeex lu ci bëri de koo ci tànn loo xoon tey na ko dee tay dem aljana ak dund la neex sax mën naa xam bu paree ñu seet ba xam da nga dem safara ak aljana sax ñu ne la naa fi des waaw waxuma la nag koo xam ne dañ la lu neex nga def dégg nga de moo tax keroog ba ko loolu dikkalee la dagale saxaaba yi ñu toog mu wax leen ko ca minbar ba ne inna abdan xayyarahu rabbuhu bayna an yutiyahu zahrata zahrata alxayaati dunia wa bayna ma indahu faxtaara ma indahu fa baka abou bakar wa qaal faddaynaaka bi abaina fa kaana huwa al muxayyar yonent bi dafa ne a ngi nii boo xam ne dañ ko tànnaloo jox ko tontóoru àdduna bu jege bii ak tànnaloo ko mu dajeeg boromam tay tay waaye nag daal ba mu waxee lii rek tabaarakallaahu abubakar jooy ne ko jotee nañ la suñ bàyyi da nga des fi nga de ne ko di ci jotal la suñ bàyyi des fi des fi hmm. kon dañ ko tànn la moom kon ba mu dem ak si dix la demee hmm. wapta daa tàmbali na fi siqaami ca feebar ba fii safarin ci weeru safar mooy diggi hmm. yow ma kaxin ñaar fukki fan ak juróom-ñett kaaf juróom-ñaar fukk la xaawun ca weer wa xaala koo wax na ko am mbaawu solo yi maanaam feebar baa ngi tàmbalee ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mooy weeru diggi ñu bari sax dañ ko jël di ko gaafal duñ ko takk jabar am na ñu koy gaafal ba nga xam ne tamit duñ ci duñ ci duñ ci maye lépp rek ngir ragal dee dégg nga de di ko feebar bi ñëwalee nag xaraja génn na Moustapha kuñ tànn ko ilayhim jëm ci saxaaba yi maridan di aji feebar waa alayhi nekk na ci moom xisaabatun kaala das baamu koy aji ñuul bu kaala bu kaala gu ñuul nag fekk saxaaba yaa nga toog mu mu war a dajee ak coom takk bopp bi ndeysaanam yéeg ca kaw min barba ñu xoote ñëw leen déglu si dénkaane bi yonantu bi ñëw leen ñëpp daje ñu mag ñaak ñu ndaw ñaak ñu bàyyi seen bunt yi sax ndeysaanam dañ koo fàttee tëj seen bunt yi sax tëjuñ ko dégg nga de mu taxaw ci ñoom nag xutba xutba goo xam ne gu mat sëkk la ci seen kanam dégg nga de mu xutbal leen xutba goo xam ne kenn mësu koo dégg dégg nga mu taxaw xutba leen xutba gu mag ci seen kanam ne nag sama rendez-vous ak yéen mooy mbalkama mooy kawsar inna a'taynaka al kawsar dégg de wa inni la anzuru ilayhi min maqami hasa fi ma toog maa ngi seen rendez-vous bu ma yàlla war a dajaleeg yéen ëllëg ci àlla xiraaj sama mbalkama man nag ragaluma ci yéen ngeen bokkaale waaye li ma gën a ragal ci yéen daal mooy ngeen xëccoo àdduna mm-hmm. xeetu yonent bokkaale yàqalu leen leen leen ko yàqal rek mooy xëccoo mbirab àdduna mm-hmm. daraja pal ak tur xalal bëgg fee des loolu la moo yàq kër yëpp waaw ñu jàpp ne ñoo war a baaxal ni ngi sa loolu moo leen yàqal mm-hmm. moo tax boo demee ci Abbas ci téere bu ñu wax Bahjatu Ibnu Abbas mu ne yonent bi dafa takk bopp ba ngir métit bisab alxames la ko la ko kii mu ñëw ne ñëw damaa bëgg a bind ab leetar pour ngeen man cee tënkuku ba bu di ngeen réer sama gannaaw di xëccoo ba maa yëm ba xii xinda nabiin te naasu mu ne ñu ne ab yonentu kenn ko sa xëccoo ci moom mu génnee leen ca loola nag Euh, moo tax sax dogoon ba mu bëggee bind lettre Omar ibn Khattab moo ko laaj na ko ndax yàlla la ko digal mu ne ko déedéet mu ne kon bàyyi ko jëru bind mm-hmm. bokk ci xam-xam ko tànnaloo mm-hmm. comme niñ salaatul fatiha bokkee ci xam ko tànnaloo ku la ci neex joxal ko neex nëbb mm-hmm. xam bu ko yàlla digaloon ne ko foog mu kon foog mu def ko moo tax euh, wax na ne li mu bëggoon a bind daal mooy mooy mooy maanaam tawxiid maanaam tawxiid la bëggoon a bind xam ngeen yoo xam ne lettre pour ku war toog sa xilaaf ak nangam ak nangam mais Cheikh borom kasfu la mu li mu bëggoon a bind mooy tawxid bu ñu bu ñu war a dellu ci alquran ak ci sunna dégg nga de waaye dugutoon sax ngir loola alasi kaan alayi assahabatul la ummato baax dawo dégg nga boo demee tamit saydi mouhamadul misri yi moo liggéey jaamiu misri yu yaa sayda alama naas haasal xaq fi tawxid mu ne bu ñu xamoon bi maanaa tawxid boobu yonentu bëggoon a bind kon li dal yi nasaraan du ñu dal ndax dafa ne woon yahuudi xaaj nañ seen diine juróom-ñaar xaaj ak ñëpp juróom-ñaar fukk yëpp safara lañ jëm ba mooy benn bi nasaraan yi ñëw xaaj juróom-ñaar fukki xaaj ak ñaar juróom-ñaar fukk ak benn yëpp safara ñoo mooy benn bi sama xeet wi xas nañoo xaaj diine ji def ko ay parti ba mat juróom-ñaar fukk ak ñett waaye juróom-ñaar fukk yi ak ñaar yëpp safara lañ jëm yàlla nañu boole ci benn ba léegi nag mu ne kon loolu la bëggoon a def nag moo tax mu ne xaraja génn na al Mustafa kuñ tànn ka ilayhi jëm ci ñoom mari la mbiru mu aji feebar wa alayhi nekk na ci moom isaabatun kaala gasmaaw gi aju ñuul waraqaa yéeg na al minbara minbara sarifa ba xatiban di aju xutba li widaaxe ngir tàggatoo waxaaw la na ko alxunafaaw sahaba ya wa arada namm na nabbi yonantu bi kat ba kitaabin bi lépp téere mooy leetar baax daxaa sa gannaaw li lahum ñeexal waaye waxaa la digal leen ko miraaw werante coow laa ko def dégg nga de kaana nekkoon na wallaa di méngale usaamatam nu saydin am rajey sin mbiram lël ba werlu bu mu doon sàkk ruuma ruum xamuhoo hitteem dëgg nag balka u mooy place bu ñu tuddee balka maanaam yonentu avant muy génn àdduna dafa dagale woon ne leen joxe woon na xare bu ñu war a xare ji fële ca ruum euh, rome yi tey fu mel ni ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy yi tey ñooñu ñoom mel ni américains yi su ko defee nag léegi mu jël euh, maanaam Seydou ibnu Usaamatu ibnu Seydin mm-hmm. xam ne fukki at ak juróom benn jëm juróom ñaar la amoon ci xale bu ndaw mm-hmm. yonent bi jël ko def ko muy généralu armée ba mm-hmm. kon moom yàgg naa jël ay responsable di ko teg ci loxol ndaw yi léegi nag ni ñu nekk fa di coow am fa naan kii ndax war ñu war a jiite parce que ponkal yaa ngi fa kenn ku ne wax yonent bi ne ah man mii de maa ko fal te ngi leen di xamal ne képp ku jam Seydou mii Usaamatu mii ci li ma da nga jamoon nga baayam ci bi ma falee baayam ndax jamoon naa fi baayam ndax maanaam maanaam faloon naa baayam waaw euh, dégg nga dégg nga li tax nag ñi koy jàpp naan ko doomi lii ak lii li nekk jaam rek Seydou doxandéem la woon boo xam ne euh, dafa xëy rek ñëw kër yonantu ba lu fa yàgg la sax si jamonoy kii la yaayam wala baayam moom dafa bokkoon ci lim donnoo ci baayam Euh, mu nekk fa nekk fa moo tax sax benn bi la mbokk mi ñëw di ko jël si yonentu bi te am loo ne ko bu la neexee nga dem bu la neexee nga toog ci kër mu ne ko leen des ci sa kër di jaam moo ma gënal ñibbi suma kër bàyyi di gor yonentu nag ndor googu mu ji ko moo taxoon mu téye ci loxoom ci grand place yi ne leen kii doomoo naa ko arab dañ daan def noonu su ma deexee war na maa doon su deexee war naa koo doon yàlla nag bëgg a dàq ak ndono ak doomu yooyu moo taxoon bi ba ko yonentu bi mayee doomi bàjjanam sëy na bu bintu jaxsin sëy ba doxut bu ñëwee rek ko sëy bi nangam ak nangam mu ne ko téyee ko te fekk jibril nee na ko kii du soxnaam dana tas yow lañ ko yàllay may wa taqila wa tux fi nafsika bi karam ba may ko yonantu bi nag mu ñu commencé yàq deram kii kay nangam ak nangam mi ngi nii takk jabari doomam nangam ak nangam yàlla na bëgg a wane ne sa doom mooy ki nga jur waaye ki nga doomoo du sa doom du sa jabar ci loolu bi si la sariya jëlee ba léegi ne sa doomi jiitle bu amee jabar dee wala mu fase ko yow bàyyi jiitle ji mën nga ko takk doom mooy ki nga jur rek léegi nag moom la moom la moom la xebaloon pour mu war a dem Ruum war a xeexe romain yi départ ji foofa dégg nga de Usaama ibnu Saydin mawlaahu dégg nga de moo tax mu ne su ma aw saa topp dénkaane na an yun fi sa ba wëyal aljay sa lël ba fëxtama xitti woon a bisaalika ci loolu xalifatu xalifa mi saabu kay joxe xaakoon xiiw mu ne nag léegi yonantu bi ne su ma génnee àdduna ci feebar bi na ngeen jël moto bi ma takkaloon drapeau bi mu dem ca waa Rome yi Rome yooyu xeex ak ñoom moo tax bi Aboubacar toogee biñ la laajee lu mu njëkk def mooy wëyal loola dafa wax ne man drapeau bu yonantu bi takk man duma ko tekki ndax ba mujj gi nag léegi nag moo taxoon dañoo dem bay bëgg a kii mujj gi ñu fomm ñu ne yonantu bi tane na ñu départ nag bañ demee nag ndeysaan la la la bañ da ko takk drapeau bañ ne yonantu bi kii na maanaam dañu war a dem ñu ne yonentu feebar bi xaw naa gën naa métti ñu toog sonn ñoo dem nag bi yonentu bi nag génnee àdduna na ci la ñu door a takkaat drapeau bi moom Usaamatu bi mu wéyal xeex ba yàlla may ko fa mu am fa ndam lu rëy rëy rëy kaana nekkoon na fii bayti Aïsa ci kër Aïsa muddata suqmi diirab feebar ba wa fii nekk na ci sawaabu ak sax baax dal wafaati gannaaw génn àdduna la xam nga amoon na fukki soxna ak benn waaye ñaar nga dañoo génnoon àdduna mm-hmm. kon juróom-ñeent ko tënj mm-hmm. bi muy feebar kon juróom-ñeent la defe mm-hmm. léegi nag euh, yonentu ci ak mandoom dafa wax ne fu ma war a aye ji rek nañ ma jàppoo téye moom ma dem fanaan foofa mu jigéen nag ci la soxna ya waxtaan ne ko may nañ la nga des kër Aïcha ndax mag mu feebar ndaw la ko gën a mën a toppatoo yëkkateeg tëral ak solol yi rek loolu yombut ko ko man ba ñu daakooree nag bàyyi ko foofa ci néeg sëriñ Aïcha bi mu génnee àdduna tamit nag ñu naan fu ñu koy suul koy suul benn saxaab yi ne man mas naa dégg yonantu bi wax ne ab yonantu fi mu génne àdduna foofu lañ koy suul moo waral léegi foofu lañ ko suul ca ni nga Aysa mu jigi jàkk ji yokk ba ñëw fekk ko foofa dégg nga de moo tax benn waaye bi ma laajee ne waaw ndax mën nañoo nit ñi ci jàkk xam nga nit ñi suñ di compte rek leen nit ak jàkka yàgg naa fekk jàkka de waaye nit ak jàkka mi jàkk yàgg na ko fekk si ren mm. waaw nit jàkka lañ wala fi ñu leen suul ci àll ba jàkk ñëw fekk si ren dana mm. taxitana alayhi masjidan yonentu bi nitu jàkk la moo tax bi ñu ko suulee jàkka ji fekk ko hmm. kon nit ku baax ku dëkkoon ci jàkk di ko jaamu ba génn àdduna ñu suul ko ci wetu jàkka ji dara ñëwu ca hmm. léegi nag ni ñu ko jël ni bëgg foon ñoom la ñuy jaamoo yooyu du jaamuwut leen hmm. dañoo baax rek dégg moo tax mu ne euh, Aboubacar Aboubacar kon koo teg bil mamalik ah, bil mamaliki ci ay jaam wa salaateeg julli maanaam bil mamaliki ci xoyof ci xoyofal ak sëf ak toppatoo ak yërmande ci jaam yi wa salaateeg julli xat awtaa la dénkaane aaxiral umri yi mujj ak dund ba wan xaddaa daytal na isaawu dénkaane la yonentu li mujj a dénkaane mooy ne képp ku yàlla mayab jaam te mooy koo xilif rek yi jamono dee ko teg lum attan am leen yërmande ci ñi ngeen xilif mm-hmm. am leen yërmande ci ñi ngeen xilif dee leen julli am leen yërmande ci ñi ngeen xilif dee leen julli mm-hmm. ba mu jigi ndeysaan man ta waxati ñi ngeen xilif mu jigi muy wax ne dee leen julli mm-hmm. dee leen julli julli julli ba far génn àdduna njëkk loola nag ñëwaat na dajale waat jàkkat yi ñëpp toog mu ne leen waaw képp koo xam ne ameel naa la àq ñëwal nga fayu ku ma ameloon àq rek ñëwal nga fayu bala maa dajeeg yow ëllëg sama kanam borom wax ko wax ko ba muy yoon kenn waxut xam ko waxee tamit ba muy ñetti yoon ci la ko benn euh, ci taxaw ne ko yow da yonent bi ameloon nga ma àq yaa ngi ma waroon a am ameloon nga ma nangami dërëm yoo xam ne waroon nañ ma ko jox ca xare ba nangam ak nangam mu ngi ko tax laajoo ma ko say su ma demoon lii sa kanam borom nu may def après mu digal Seydou wala ma ne ko yëkkatil alal ji ngeen jox ko ko léegi nag ñeneen ña commencé mu ne nag yéen tamit képp koo xamee ne nii ameel na ma àq ameel ko diine ji na taxaw wax kenn nangu ta wax mu waxaat ko waxaat ko ba ci kanam benn waaye taxaw ne ah man de yonantu mos naa jël alal de amel naa la àq de ci màng ma lu tax nga def ko mu ne ko damaa amoon soxla rek mu ne ko boo amee soxla te nga wax ko moo gën ngay jël ci màng mi di di def waaye nag fayal ak yàlla ji yow tamit dina màng mi war a am ñi fay la ko kon gis nga loolu la nekk dénkaane ko wax loolu def discours ba pare di wax julli oyofal jëm suñu jaam yi kenn ku ne moom di ko wax di ko wax ba roxo ga teqali ko léegi nag mu ne daa a leeroon na arjaawu taybata wàllu tayba id ataaha ba ko yonent bi dikkalee wala dal mawti fa dégg nag aslama lënam na arjaaw wàll ya lii xaal la bëgg a wax maanaam ba ñu suula ak bi rek ñoom xamatuñu seen xaal mu mel ni daal yonent ba muy ñëw madina leer ba mu àndoon ak taar ba madina dafa leer naññi waaye tey bañ ko suulee dafa mel ni madina dafa mujj lëndëm waaye loolu ma maanaam ñàkk seen teewlu ga moo fa amatul fu mu ne nii. boobu yow mi lis nañ ni bisab altina shahr rabian ci weeru gàmmu fi yebbin ci fukk yaak ñaar mi nu ci moom xadaataa la ko dikkal xadaa moom génn àdduna ga mm. kon moom kenn du yonantu bi weer wu mu juddu ci la génn àdduna mm. bis bi mu juddu ci la génn àdduna lam juddu ca weer wa ci la génn àdduna maanaam altine la juddu ci weeru rabbiya ca fukki fan yaak ñaar altine la génn àdduna ca weeru rabia ca fukki fan yaak ñaar mm. kon moom fa mu ko defee woon rek fa la ko defee aatee dégg nga de makka sa sax na taaxaa yonantu bi fii mi ca feebaram ba ramsu taaxaa limab taaxaa am xalifa ne bu ñu la laajee ñaata fan la yonantu bi feebar mais limu turam wala feebar taaxaa boo ko seetee quatorze la fukk ak ñeent fukki fan ak ñeent ci bi la tëdd feebar di ko yóbbu àllaaxira wa bi yowmil wujuudi ca bisab dikk ba mooy bisab judd ba kaana la xamee tamit li xaaw bisab dajee ba mu yàltine la wa salaasu ñetti xat min baax min baax di sittiina gannaaw juróom benn fukk xaman ci xat umruhu mooy dundam ba mi maa xat xakkaa li nga nettali ko damaa ñu jiituñu bu ñu laajee lum dund mooy juróom benn fukki at ak ñett la yonent bi dund ñeent fukki at la am ñu yónni ko mu am ñaar fukki at ak ñett ci yonent ba hmm. am Makka juróom fukki at ak ñett am Madina fukki at mu génn àdduna dégg nga hmm. wa asaaba jot na sahaabu sahaaba ya xusnu njàqare sahaaba sahaaba ya xusnu njàqare sa bi doon gu tar rachiyat hu muur na leen kaabatun njàqare am yaaw bay aji gumbaay ba ni yonent bi génnaat na ñoom ñëpp dañoo teqale ko seen xel koo gis xar-xaramam baa baa nga ñëkk kenn nekkatu fa waqaxat tàbbi na dajatun coow li zaaka ngir loola minhum ca ñoom waxalat kawe na ranantun aram lan tanu ndoxum ñelaw bu kaawu jooy ñëpp jooy waxat yi ko aboubacar siddiqu kay dëggalaa kon ba kaan nekkoon na bi sunxin booba dafa amoon ab siit ab soxna daal boo xam ne mi ngi ko mi ngi ko amoon sunxu ci benn quartier la soriwul foofu ci Madina mi ngi mel ni daal Euh, maanaam almadi la ayoon mm-hmm. moom na demoon foofu ba muy dem seet na yonent bi dem fanaani foofa mm-hmm. foofa rek la déggee yuuxu ya mm-hmm. ñu ne yonent bi génn àdduna moo tax mu ne fa ataawu dikkal na ko fa bu kaawu jooy mi ne sahaabi sahaaba ya wa asaaba jot na sahaabu sahaaba yi isaaka foofa la xusnul njàqare dégg nga de minu ci moom tubir dana dana dana weexal a lammatu njañ sawdaawu koy aju ñuul njàqare gi daloon sahaaba yi daloon ñu baax ñi bu ñu fekkoon borom karaw gu ñuul sax njàqare ga mën na koo tax a bii jaaw xam nga eh, njàqare ak tiitaange ak jafe-jafe day tax a gaaw bii jaaw mm-hmm. mu ne uxurisat luuloof na minu coom alsunun ay làmmeñ mm-hmm. wal ma aaqi xeex ya xam yet gumba nañ mm-hmm. wastalan njaar na bi ci moom asaawu baljat ya dafa ci am ci saaba yi ñoo xam ne dañoo tiita tiit ba mënuñoo wax ku mel ni maanaam Ali ibnu Abi Talib mën mel ni ku ku ku ku mel ni kon Usmaan ibnu Affaan boo xëy rek mel ni kullu man ta waxati soo koy wax sax du la mën a tontu ngir jàq rek xam nga ni dana jàq ba du man a waxati ah mu kii moom Ali ibnu Abi Talib dafa mel ni ku gumba dana ñëw bay dëgg sa kaw du la gisati Amar ibnu Xattaab moom dafa ni ku dof tàqali koog sagoom te jaasim jëne bi génn àdduna rek ma rey la maanaam na ko yàlla yóbbu woon ca nitam ña moom Moussa ma demoon daal moom moom moom ba muy dem ci nitam ña xam nga dogoon na ñeent fukki fan ngi nitam gisuñ ko ba mu demee ba si kanam nag si la ko yàlla indiwaat léegi nag mu ne loolu loolu la mu yonantu bi dem dafa am audience ak boromam rek waaye bu audience bi jeexee doon dël siwaat ku waxat ku noonu la ko déggee woon waaye ku ne dee na rek ma rey la kenn ñu mu ta waxat loolu léegi nag Aboubacar moom moo ci xaw a am dal ànd ak sago toujours yàlla day def loolu kilifa yàlla koy def nit koo xam ne bu njàqaree amee jafe-jafe rek moom day ànd ak dal xam ban yoon lañ mën a am ba solution mën a am moo taxaw nag léegi di leen waa taxaw ak ah, kii téye jaasi ji ne ko yow la wax nga ne yonent bi génn àdduna akay ah, maa ngi lay xamal ne man kaana yaxbudullaha fa inna la xayun laa yamut wa man kaana yaxbudu muhammad fa inna muhammad qad maat wa ma muhammadun ila rasulun xat xala min qabli rusul afa in maata ba mu waxee loolu daan Omar di lox lox ba jaas ji ko mu ne ko aaya ji mi ngi mel tey laa ko door a dégg wallaahi moo tax maam Khalifa ne sabbata dëgëral na laahu yàlla bin xatiqi ci Aboubacar unaason aw nit xasa ba yolleeku na sabru mu ñu xam ne walis leen wala xasa woog dëgër laay ga mooy njaale ga ñoo ñu ndeysaan ñëpp bañ demee Aboubacar ci lay ko yàlla dëgëralee dégg nga de euh, dégg mm, mm, mu teg ca ne wa aliyu aliyu abbas ak abbas wam naawu ñaari doomi abbas ya mooy fadlu ak kusum mm. suquraan suquraan jaam la bu mu doon neexoon ca baayam mm. usaamun ak usaamatu wa saydun ak saydu mm. jaawoo ñoom juróom ñaar ñi ñoo ñëw li xus li ngir sang yonent bi ma laajee ñi ko sang daal aliyu la abbas la fadlu kusum suquraan usaamatu ak saydu ñoom ñi ñoo sang dégg nga su ma aw su topp aw su ci bokk mu juróom-ñett xat xudda li muy fi ñu bokk si ñoom bi xaw liñ ci wax wala hum ñaal na leen maf xaru pour ko rek war sanaawu tagg li ñu ci moom maa sang yonent bi tiitaru liñ ko sangee nag moom xalifa mu ne bi kuraahin ci baab xat jaa yoo xam ne ñu ngi ko jëlee min biiri xarsin mu ne ñi ngi ko rootee teel bi mu tuddee biiru xarsi lañ rootee ndox ma su ma kaafur topp kaafur taaba tey lim ni cos saawa xet ga am na ndoxam kaafur su ma si durun am na déem wala xusuur sang ga kaana xamee ne bi sabxin juróom-ñaar xirban ci baag lam yoxul la tekkiwut anaa ci moom alluñu kaawu takk-takk ya mu ne baag yañ jukki sax bañ ne lii mën na koo sang xam naa ñaata la gannaaw bi ma lay waxee teen ba biiru xarsu da baag yañ jukki ne mën na koo sang juróom-ñaari baag la sangu ma ñetti yoon la sang mu njëkk mi ndoxam kese sangum ñaareel ma dañ def nañ ci siddéem sangum ñetteel ma def nañ ci kaafuur dégg nga de su ma salloo topp jullee nañ xale yi ci moom fil bayti ca biir néeg ba afta sa mbir mu ñuy kenn kenn walakin li fi nekk ma jiitu na xurabaaw ñu jege ña maanaam yonent bi jullee wuñ ko benn yoon li konoon ku ñëwati dootoo mën a jullee dañ ko faa bàyyi rek ku ñëw jullee ku dugg jullee délégation bu ñëw jullee par kenn par ñaari ginne yeeg malaaka yeeg ñëpp fekk nag jibril la njëkk a ñëw jullee si ko ñooñu nag bu ñu ñëwee diiram ñetti fan parce que altine la génn àdduna ñu koy jullee talaata àllarba ba àllarba ci guddi lañ ko mujj rob dégg nga de waqadaa mujj na laylul arbia yi guddeeg ajjuma dafi nan dikkuñ rob guddeeg ajjuma lañ ko da nga wax ne waqadaa mujj na ah, <laughs> dafi dikkuñ rob laylul arbia yi ca guddeeg ajjuma waaw bi sab àll wax di waqadaa mujj na dafi nan dikkuñ rob laylul arbia yi ca gudd man sax maa ngi jaxasoo <laughs> ca guddeeg hmm. fa tedd na xen saa fii lii ci moom arbia mu àllarba ci la àllarba jëlee sax tedd nga hmm. wax nañ ne képp jullit buñ la ci dencee duñ la laaj dara hmm. te am niw buñ ko laaju rek mu texe addara joobu taxañal nañ ko taxañ nañ ko mm-hmm. fi saaka foofale fi aswabin ci yére bii duñuy weex faraasin yooyu ñett walil bu dóori aji nekk la ñeel weer yi te mooy weer yonent bi xitaabu ak muuru mm-hmm. pare ndeysaan bañ sang ko nag daal di jël lam ñett yére muure ko ko mm-hmm. maam xalifa na nga duggoon ca biir pax ma sax ne jox leen ñu néew bi sax xam naa leen day wax ne daqala tàbbi na alxabra bàmmeel ba inda saa fii xusumun xusum doomi xabaas ba wal fatlu ak fatlu su ma xabaas topp xabaas mi seen bàyyi hum ñoom xorobaa ñoo jege ñaale yonantu bi mm-hmm. ndax Abbas mi seen baay mooy bàyyi yonantu bi bokk ndey ak baay mm-hmm. kon ñaar ñi ay doomam lañ waxal yu xal li yu duggoon la bokk waxal li yu xal yu saara mujj na dañ leen di agi tasali xaw mi ñeel nit ña xal mu mujj di leen tegtal ne xëcc leen mu jëm nday joor ni leen càmmooy waaye nag ba mu leen tegtal biir bàmmeel ba mm-hmm. xaw lu ñëpp wër dégg baax dama bàyyi xoo gannaaw bi ñu jaayante nga xam te Abubakar jëmi xam ñoom ñëpp jaxasuhu lañ ko waajal wa ni baax na araaw xilaat ya maanaam nag avant ñu koy denc de fekk na mbiram xilaafa gi rek la nañ ko de mm-hmm. ndax booba ñu bëri coow lu bëri naroon a am mm-hmm. ñi wa muhaajiru ne ñun kat ci xilaafa gi si ñun lay bokk mm-hmm. waa lan saar ne déedéet ñun ñoo dëgëral diina ji gatam lu yonantu bi moom dëkk bi kon ñun ñooy moom lay génnee mu ne ñaari xalifaay am seen xalifa bopp suñu xalifa bopp coow lu bëree bëri bi ko gën a rëy kenn mun la ko wax ñetti fan ñu toog di ko réglé mujj gi nag la ñu d'accord bañ degee saq saqifa bun saada ñu dajee fa Omar ibnu Xataab ak ñooñu ñu ne daal léegi nañ proposé ñett ñett ñañ proposé Aboubacar la bokk ak Omar Omar moo a bañ te njëkk taxaw sukk ci kanam Aboubacar ak jaayante ñi ci ñëpp nag pexe ma yàqu ñoom ñëpp nag ñu mujj jaayante ak Aboubacar mais yow mii yow bi yaa war a nekk xalifa bi yonantu bi yonantu bu ko bindu na ko ñu ne ko lu tax mu ne fu yonantu mosoo nekk premier rek yaay deuxième maanaam ñun ñii ñëpp bi yonantu bi moo njëkk moom yàlla njëkk jox diina ji bu njëkk gëm boppam gannaaw yonent bi yaa ko njëkk gëm ñun ñi yëpp sa gannaaw lañ ne man ak Ousmane nag ñu fi ne ñëpp ñaareel bi ñun ñëpp ñu ngi fi woon bi yonent bi gàddaay yi yow la yaay yaa ngi ma àndoon yaay yaay saani yëf na ni isuma fil xaar yi ñetteel bi yow mii ba yonent bi dugg Madina yéen ñaar a dugg leen ndoor ba kenn xàmmeefut leen woon sax yaa jël sa làmbaay nga di ko ko keral ñu xam ne ki ñuy keral la yonent yow mi ko keral yaay Aboubacar bu ci tegu tamit yaa ngi nii biir bi yonent bi feebaree ñun ñëpp a ngi fi woon mm-hmm. waaye yow la waxoon ne yaa jiite nit ñi loolu koy doy na doy na junji mm-hmm. nga jiite lu mat fukki julleeg juróom ñaar yoo xam ne yaa ko jiite nit ñi ci gannaaw yonent bi <laughs> yow tamit la yow rek la yonent mos a ñëw ci yow fekk ngay julli ba mu ñëwee fekk ko mu julli ci génn ak julli mm-hmm. yonent fa tene rek dem jàkk ja kon mu nga jàkk ja rek commencé na fekk Aboubacar commencé jiite nit ñi muy ñëw Aboubacar ngir tegginam mu arrière bàyyi mixraab bi yonent bi yonent bi di ko bamax muy arrière ba mujj ñoom ñaar ñoo mujj tolloo mujj gi maanaam aboubacar nanguuta roy ci yonent bi aboubacar ngay ci roy roy ci yonent bi mbooloo maa ngi roy ci aboubacar julli ko xaw a jaxasoo la mu ne ko nag kon lii lépp li muy signalé rek mooy yow yaa war a jiite jullit ñi léegi nag ñu bàyyi ko fa mu taw mun na yàggu ci xilaafa ga ñaari at la ci am ak ay weer génn àdduna dégg nga moo tax mu ne wa ataahum dikkal na leen mu asiyan di aji jaale xadirin xadir istamion ba ñu déggee sawtoo kàddu nga wañu xam baax na xasaawu jaale ga maanaam bi ñu génnee àdduna daal mm-hmm. xadir bokkoon na ci ñëwoon jaale si mm-hmm. xadir na xam nga ba léegi deexagut moo tax boroom xam-xam yi ne ñeenti nit mm-hmm. ñoo génnagut àdduna ji ay yonantu ñaar ñi yonantu lañ ñaar ñi ñu ngi ci kaw ñaar ñaa ngi ci suuf ñaar ngi nekk ci kaw te deexaguñ mooy yonentu yàlla Idrissa ak yonentu yàlla Insa bu ñu walee bufta ba ñëpp war a dee ci la ñu door a dee ñoom ñaar ñëpp yàlla wax ne maa leen yëkkati Idrissa dafa ne naa rafaxnaahu makaanan aliyan saa dafa ne bal rafaxahu laahu ilayhi waliyu yàlla la moom dafa dafa naanoon ci maawul xayaat ca laxasam gu tudd gudd googa moo waral yàlla dogal na maanaam deexut ba léegi nag gaa yi yàlla yi ñu ngi koy gis comme ni ngi gisee ba tey tam xam naa ci wëlli yi nga xam ne kii wuñ Cheikh Omar Fouti wax naa ci la bokk dégg nga léegi nag euh, ñu euh, ñu dégg kàddoom nga muy wax rek ci la Aboubacar ak gaa yi ne leen di wax xadir la dafa ñëw ngir jaale leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga xafaroo gas nañ laxduwoo laatam ba waaxalu wa waalu kawel nañ xàll yi ci la binaatin ay dembaleñ mm. te saam yee juróom-ñeent ba ni xam baax na mm. binaawu tabax ba maanaam bàmmeel ñeent ñett la mm. am na chiq hamiq laxdu laxdu mooy gas ba bàmmeel bi xóot nga gas sa penku ba xam ne boo ko boo ci dugalee néew ba boo sottee suuf sax mu dal ci kawam bàmmeel boobu lañ defaloon yonent bi loolu nag suusu dëgër ko man suusu ndakaaru mënu ko boo ko defee ñaareel day day sot day kii waaw kay foofu nag la boobu lañ ko defaral yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, gannaaw bi ñu werantee ci lu bëri ban ban ban ban kii lañ ko war a gasal ba léegi benn waaye yonentoo ne allah du la naa wa shiqu li xayrina dégg nga de euh, léegi aaxirul xaafirina ki mujj ca waay gas ña ah dan ci kóllëre lu taxaat ci yonentu bi xusum la maam xalifa mel ne ki mujj a gas ñu ne doy na sax xam naa ko dañuy gas bàmmeel ki mujj a gas ñu ne doy na xóotaay bi doy na yaatuwaay bi doy na mooy xutun di doomu xabaas mm-hmm. innaha naka loolu dafa ñeel na ko xal yaaw ak kawe mm-hmm. waaye biñ gasee nag ba denc yonent bi ñëpp ñibbi ka fa des nit ku ñuul moo fa mujj moo tax nit ñu ñuul ñu mujjee diina ji mm-hmm. su ma rasha topp wis na al alxabra bàmmeel ba sarik bu tëdd bilaal bilaalul xabashi di éthiopien bi moo fa mujj bi sanoo bin ci ay baag laxaa ñeel na ko dalaawu baag yi fi daawu ak njot moo fa dis nag buñ bañ suuf si kii mu jël baag di di di wis bàmmeel ba mu jël ay xeer teg ko ca kaw juróom-ñeenti xeer lañ tegoon ca kaw mu wër bàmmeel ba rabbana yow suñu borom salli yàlla nga dool xéwal suma say mu xàll ci yonantu bi ma asaxa fekk soril ma diyaawu leeral mu suma salaamu lënd bi fekk leeral yonantu baa ngi dàq lënd bi rabbana salli suma sallim alayhi maa tax na fekk way na fekk fab na rek xamaamatun fi tax war xaaw bay aji sëq ji dunq rabbana salli suma sallim alayhi maa bada fekk feeñ na shifaawu saafara lil xulóo bi ñeel xol yi min bàyyi ko ci yonantu fekk yonantu baa ngi saafara xol yi rabbana yow suñu borom bil haadi ci darajaa yonantu bi wa bi sax bi ak darajaay saxaaba yi wala ali darajaay ñoo ñoom ña xin naa yàlla nga ñu fegal ma takki dinaa loo xam ne dana fexeel ñu ko aadaawu ah, noon yi mm. loolu nag jar na ñaan mm. rabbi yow sama borom wax fir yàlla nga jégali waali ñeel sama ñaari waajur mm. waa man ak képp koo xam ne kaana na loxoo ñeel ko rabbana yooyu suñu borom nga xam ne kaana nekk na loxoo ñeel ko min ka tukkee ko ci yow man si lul wàcc waay ba walaawu ak ming ak kilifteef ndax yaa doon wax allahuma waali man walaahu wa aadi man aadaahu yow yàlla képp ku méngoo xal yu méngool mbiram ku ko noonoo noonoo ko wa taqabbal yàlla nga nangu bi daaxatan marchandise jala bataxa boobu bijj na ko euh, euh, dégg nga raaxatun ténk safraaw bu ñàkk mooy bu gel tablu bu di sàkku ref xa bénéfice mooy rek arab day waxee lii daal man maa ko liggéey di ku ñàkk te jubluwuma ci lu dul ku ma may bénéfice rek ku ma ku ma ma am ci ak tono ko talaxat fenk na moom xasida bi samsu xusniha jant ak taaram ba mooy faaxil ja mm-hmm. xaama sam si jant ba mm-hmm. mi ne sam si ak tukkee ko rek jant indi laaw ak fi nga xuraan bi ñëwee lëndëm mm-hmm. maanaam dafa bëgg a wax année bi mu liggéey téere bi année bi téere bi fenk mu koy liggéey moom maam xalifa mu ngi tolloog mille trois cent maanaam trente quarante ndax siin bi ne la miim ka maanaam quarante la siin su maanaam nekk trois cent kon at boobu la maam El Hadj Malick génn àdduna. Mm-hmm. at moom tamit la maam euh, maam maam El Hadj Blaguès génn àdduna. Mm-hmm. at moomu ci la maam Khalifa defar mm-hmm. euh, boo tax bi bokk na ci yi mu mujj a defar doon def ñu koy gàmm mooy jaaba xifaar boobu. boobu la njëkk def xasida boo xam ne doon nañ toog di ko gàmm. waaye bii nag ci kanam bàyyam la ko def. bàyyam sonn na ci gàmm mel na at. moo wax wax na ko si tarjumaan ji ne at duñ ko kii maam El Hadj lay gàmm ci bañ waaye ba kii. maam mu dafa tabax yàgg na ñëy bi leer naññ. nekk yonantu bee ñëw noona mu bàyyi lam doon def nag dem ci tànt ba ci la wax ne téere bi ku ko jàng sellal ko balaa jeex da nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu keroog la jab laay wax na ci lu rëy rëy wan fax yàlla nga jëriñ al ahla ñooñee wal aqaariba ak jegeñaale yi wal xaadira ku teew min haa ci xasida bi wa man ak képp koo xam ne doxoon yàlla na ko iqraaw ak jàng kon yàlla nañ ci bokk wasalaatun dooli xos wasalaatun mucc man yàlla nekk ci koo xam ne huwa moom mabda'un mooy tàmbali waay lil kaw ni ñeel àdduna bi wanti xaaw mooy waay lil kaw ni ñeel àdduna bi lii mooy baraatul maqta bu rafet la maanaam si sa jeexeelu téere bi nga wax ci baat buy tekki ni téere bi jeex na yàlla ñu yàlla fa fayal xalifa yàlla may ñu cofeel buñ ci yàq yàlla ñu ko yàlla xamal buñ ci xam yàlla ñu yàlla def ñu gëm ko jëfandikoo ko yàlla wàccee barkeb téere bi ci suñ kaw wàccee barkeb yonentu ni ñu jàngale ay meloom ñun ñëpp yàlla boole musal ñu boole musal ñu gudd fan gu ànd ak wér te àddina bu àllaaxira dëkk la ñëw bi ci aljana na ko yàlla na ko yàlla def ñu wàccee barke fi ñu koy jàngee wàccee ko ci ñu ko fekkee wàccee ko ci ñëpp allahumma salli ala sayyidina wa